awi taabiina foofu lañ toll woon waaye ñu dem tuuti ci ginnaaw rek ndax ñu mën ko jël laaya ji mu mat waxul lil muminaati auzu billahi min alsheytaan irajim bismillahi irrahmani irrahim wa fàttalikul yow sallallahu alayhi wa sallama fàttaligu ànd ak xul neel lil muminaati ñeel jullit ñu jigéen ñi yaxdud na nañuy wàcce min absaarihin na ci seen gis yi nañuy damm seeni xef nañuy damm seeni xef ci gis maanaam nga wàccee sa mbaru bët ci góor ñi jigéen ñi la yàlla di wax mu ne nañ wàccee seen mbari bët ci góor ñi waaw nañ seen mbari bët ci góor ñi waxuñu la nga gëmm la góor ga waxoon jamono fii mu toll mook tali bu jaar ci digg marché yam boo gëmmee oto fiir la boo xoolee xool lu la neexul yàlla foofu la jamono toll moo tax nag wàccee gis yi la ci yàlla jublu lu la daganut yow jigéen góor gu la daganut nga wàcce sa gis ci moom mu ne bu leen ca yem ci wàccee seeni bët wal yaxfaz na nañuy wëttu nañuy wattu furujahunna seeni pëy ba buñ ca njaaloo nañ sàmm seen bopp ba buñ njaaloo ci àll bi njaaloo sax moom àll la rek baati njaaloo moom fu mu am rek àll la mu ne walaa yubdiniina walaa yubdiina buñ di feeñal na seeni taar illaa lu dul maa la nga xam ne zahara feeñ na min ha ci seeni cër mooy xar kanam ak takku njarabe ci ay loxo takku njarabe ci ay loxo ak doojoor becele ca tànk ya loolu la yàlla wax ne nay feeñ rekk ci jigéen seeni taar nag lam ca jublu mooy jigéen dana ñëw ci kanam a ah, loolu de Sénégal war nañ ci bàyyi xel léegi sax tane na waaye bu njëkk xale yi buñ gisee seen yaay solo rek dañ koy wax yaay foo jëm ndax sénégalais tàmmuñ ñu ñu solo ba pare toog ci kër gi boo gisee ñu solo rek xew lañ jëm wala dañuy génn kër gi loolu la yàlla wax ne nag yéen jigéen ñi bu leen ko def nangeen solu ngir seeni jëkkër ku ca amul jëkkër nag ah nga sol lu yemba mbaay waaye yàlla bëggul jigéen juy feeñal ay taaram illa ma zahara minha lu dul la war a feeñ feeñ rekk mu ne yem ca yegg ca nag bay wala yadrib na ngeen di dóor bi xumurihin na ci yi ngeen di takk mooy ay fer nañ ko wax mu leer rek boo fi nekkee naan yi yëngoog yi kii ja picc-cik yëpp day da lay sonal rek ah, booy yi loo wax xam nañ ko loo waxut xam nañ ko waaye jàng nga wax ko rek booy yi yëpp ko xam <laughs> bu ñu kenn pat bay di <laughs> okay shérif du noonu ah, mu nga yàlla ne wala yadrib na bu leen di yëngal bi xumurihinna ci seeni fer yéen jigéen ñi foo toll takk ko muy keseng keseng yi yàlla ne bu leen ko def de xanaa dana ñëw ci kanam ala juyubihinna yi nga xam ne mu ngi ci seeni ndigg maanaam yi fe yi yi nëbbatu am na yeneen yoo xam ne nag ci tànk lañ koy def bu dee naar yi am na yu ñu daan def ci seeni tànk ay lam lay doon bu ñuy dox muy keseng keseng yi yooyu naar yi ñoo ko daan def ñoo koy faral di def aadaay naar la naar xamut jaljali déedéet moo tax nag suñ borom yàlla dara rëccu ko dara rëccut yàlla dara lu ñu yaakaar ne rekk yàlla amul ci soxla am na ci soxla parce que day perturber te yàlla bëggul luy perturber nit rawati nag luy yóbbu furu faraam moo tax mu ne bu leen ko def mukk yéen jigéen ñi wala yubdiina bu leen di wone buñ di wone ñoom jigéen ñoom jigéen ñi na seen taar yi illaa lu dut li buulatihinna lu dul seen jaba seen jëkkër yi waaw kay gis nga foofu leer na yàlla nee na boo amee jëkkër nag bu la neexee takk ko ci baat ba ba ca tànk ya yaa xam yoonu kenn nekku ci waaw buul mooy jëkkër alxuraan moo riche aw abaihinna waaye du léegi de léegi nga gis bàyyi yi tëddee seen doom yi gën a yàlla kay mu ne sa jëkkër mën na ko dégg aw aaba ihin na wala seen bàyyi xam nga bu bàyyi nag dëgg dëgg nag warul am soxla ci doomu jigéen baayam koj armalam la moo tax baayam daf ko xaram moo tax baayam mën naa gis ya muy takk wala mu dégg ya muy takk bu fekkee nit la waaye léegi moom yaa ngi nekkatuñ nit de léegi moom àddina bee tukki aw abaayihinna wala seen bàyyi aw abaayi buulatihinna wala seen bàyyu jëkkër yi <laughs> ah. aw abaayi buulatihinna awwal aw wala boog aaba i seeni baay ya bu ulatihinna yu seen jëkkër yi sa baayu jëkkër mën naa gis yooyu ci yow waaye ah, attention de aw abnaihinna walla seen doom yu jigéen yi yéen jigéen ñi seen doom yu jigéen bu leen neexee bu leen leen ko nëbb aw aaba i aw bani déedéet aw ab abnaa'i bu'ulatihinna wala seen baay seen doomu ab abnaa'i bu'ul wala seen doomu jëkkër yi maanaam sa jëkkër nga sëy si ci kër gi fekk fa ay doomam ay doomam it dagan nañ ñu gis sa yenn cër yi mooy xam xanam loxo ak yooyu dagan na mooy sa sa doom ñooñu say doom lañ rek ndax say doomu jëkkër sa sa doomu jëkkër donte juróo ko sa doom la xaraam na mu takk la xaraam na mu takk la moo tax yàlla boole ko ci aw ixwaanihinna wala seeni frère boo bokkal ndey ak baay wala ndey wala baay aw nisaa'ihinna wala seeni sœur seeni jigéen boo bokk ah aw bani ixwaanihinna walla seen doomu freer yi kooku ñoo ñit xaraam nañ la moonoom sa jarbaat lay doon bu boobaa du noonu sa doomu frère yow jigéen yow góor sa doomu sër sa jarbaat la dina ñëw aw bani axawaatihinna wala seen doomu sœur yi du noonu aw bani ixwaanihinna seen doomu sër yi wala seen doomu frère yi aw bani ixwaanihinna aw bani axawaatihinna ah aw bani axawaatihinna wala seen doomu sœur yi ñoo ñi dagan na ñu gis yenn yi ci yéen aw nisaa'ihinna wala seeni jigéen du jigéen yi ca yi ñuy wax léegi de koo taseel ci mbedd ne sama jigéen la déedéet sa jigéen mooy ki nga bokkal ndey ak baay wala ki nga bokkal ndey wala ki nga bokkal baay koo koy sa jigéen waaye yaa ma neex yii ci mbedd mi sama jigéen la ji góor ñi tamit te eh, ñoo koy def ñaare sax koo ci dégg mu naan yaa sama jigéen la boo doxee tuuti dégg takk na ko ah. ñaare foo koy dégg sama jigéen na booy dox tuuti rek dégg ñu ne may nañ ko jigéen ñi tamit foo ci dégg ñu naan sama càmmeñ la sama càmmeñ la tuuti rek mu càmmoñoo ko waaw ah, maa la ko wax aw maamalakat aymaanuhunna ba jaam di am ba jaam di am jaam amatut de ah ñu baal ma xanaa sama mbokk tukulóor yi ko mecce do xaw ma ko macce do xaw ma macce do xaw ma niñ koy waxee jaam amatut de jaam amatul ci sharia ci shariatul islamiya jaam amatul boo demee ci suñ mbokk naar yi nag ñoom am nañ ko ba tey de waaye jaam amatul de li tax islaam dagg jaam amatul ba fii ñu tollu ba ca gën a fés rek mooy ijma lu ñépp dëppoo jullit ñépp dëppoo ci rek ne dañ ko fiy jële yonent bi nee na na sharia wéyal na ko te àddina bi unanimité benn pays benn pays bu ci bokkut amul ñoo daje ne njaayum jaam na jeex ndax boobu dañ ci tàyyi njaayum jaam na jeex ku jàppati jaam di ko jaay dañ lay yóbbu ci yoon atte la ñu ne dagan na ñu ne waaw d'accord ngeen ñu ne waaw ñu ne pays yëpp nañ ko signé pays yëpp siñe ko tey jii koo fi jàppoon di ko jaay dañ lay dugg yóbbu ci kaso bi waaw kon loo tax nga toog ci kër gi nag naan kii sama jaam la di ko liggéeyloo jaam amatul ci sharia waaw aw maamalakat aymanuhum ba jaam di am jigéen jaam bi mu am ci kër gi dagan na parce que du ko takk moo tax mu génne ay yenn ciiram ak yenn takkaayam ci kanamam awit taabiina du foofu awit taabiina gayri ulil irba mooy ñi nga xam ne dañuy ànd ak yow ngay jóg di dem di añi ñu topp la ah ustaas yoo loo indi waaw xam nga loolu aada la ci dëkk yu bari rawati nag Sénégal ngay añi rek Sidi Mbay mën na baax rek ne acca leen ñu añi gaa topp la ña ngay ndoor ca bool ba ñu tamit mën na ñu gis yenn yi waaw ullit irbati ndax mbooloo la ñu ngi toog minar rijaal ci góor ña awit tifli wala xaleel ku mel ni le ah, ñii façon bii le ba ba ñuy am fukki at ak benn waaw juróom-ñaari at ba ba ñuy am fukki at ak benn ñooy mooy xale waaw awit tifli waaw zéro à onze ans alladi xale yaa nga xam ne lam yazharu lu léegi de yàlla gis nga leeral na ko de xale yi nga xam ne lépp lañ xam yàlla yàlla moom lay leeral fii de mu ne na nekk muy xale kase kase de waaye bu dee xale boo xam ne day nettali ji nëbbu ko de balaa muy génn naan sama yaay nangam ak nangam wala sama papa nangam ak nangam loolu la gis nga moom la yàlla di siñaale nii waaw awi tifli wala xale yi nga xam ne alladina xale ya nga xam ne awi tifli wala xaleel alladina xaleel ya nga xam ne lam yazharu feeñaluñu ala awraati nisaai maanaam xamuñu feeñu awra bu awra feeñee sax xamuñu ko ñoom xamuñ lii lan la loolu la yàlla di wax mu ne ñooñu nëbb leen awra feeñal awra amul problème waaye bu dee classe gi xam nañ ko léegi de <laughs> léegi xaleel moo amatut loo ciy def tey bàyyi rek nëbbal rek waaw nëbbal rek xale yi dañ dañ kumpa te dañ mën a laaj lii lan la lii lan la lii lan la lii lan la wala yadrib na du foofu mu ne walaa yadribna bu leen di dóor bi arjulihinna ci seeni tànk li yu'lama ngir ngeen feeñal maa la nga xam ne yuux fii na nëbbeef nag nëbbeef nañ ko min ziinatihinna ci seeni ndigg mooy fer waaw di dox di dóor say tànk muy keceng keceng yi yàlla ne keseng keseng yi yàlla ne bu leen ko def yéen jigéen ñi bu leen ko def lii nag àtte alxuraan la de te jigéen ñi de xewal nañ ko nag xewal nañ ko de xewal nañ ko de jigéen bu amee yooyu na ko ci ca néeg ba waaye bu mu ko génnee ci mbedd mi buy dox muy këcëng këcëng muy perturber ay jàmbur yàlla ne bu leen ko def yéen jigéen ñi ah ah ah waaw danañ sonn de yàlla na yéen ñi ko ci jot a def ba noppi nag wa tuubu nangeen ngeen tuub ilallahi jëm ci buur yàlla jamian mboole seen yéen góor ak jigéen yéen ñépp nangeen tuub jëm ci yàlla ñi ko doon def te ngeen bàyyi nag te ngeen bàyyi kuy tuub da ngay bàyyi ayyuhal muminuuna yéen ñi gëm yàlla su fekkee gëm ngeen yàlla yàlla nee na tuub leen te bàyyi yii fam daganee rek ngeen yemale ko fa waaye bu leen ko génnee ci mbedd mi nag ñu ne ko buñ tuubee luñ cee amee mu ne la kom laallakum ndaxte yéen tuflixuuna ngeen mën a texe ëllëg ba dugg àjjana kon loo cay déggee mën na gàllankoor nit ba du dugg àjjana ndax fi yàlla terminé moo tax waaw kom ndax yéen tuflixuuna ngeen mën a texe ba dugg àjjana waaw keñ lu ca topp wa ankixu na takk al ayaama mooy ñi célibataire rekk du noonu imaam ah oustaz déet bul xoolal ma de wa ankixu al ayaama minkum wa hiya min al man laysa laha zawj mhm. bikran kaanat aw thayban wa man laysa lahu zaw laysa lahu zawjun waaw kañ loolu la ayaam célibataire ku masul am jëkkër rekk ci jànq ak ci jeeg ñoom lañuy ñuy wooye ayaama ay njéebéer boo ko doon firiti wolof mooy njéebéer nag njéebéer mbaa yàlla am na ñeneen ñuy wax mbaa yàlla mbaa yàlla mooy koo xam ne rek yàlla topp ko dara waaw yàlla ne yéen góor ñi yéen laay wax nag bu leen fi ne di xullee rek fankihu na ngeen takk al ayaama minkum seen célibataire yu góor yi jànq yi wala salibateer jeeg yi nangeen leen takk imposé la yàlla def fii de julli sax dafa neexalanteeg yow aqimu salaata waatu zakat waaye fii dafa ne fankixu julli sax yàlla dafa neexalanteeg ñun julli leen waaye ngir yàlla waaye waaye julli leen aqimu salaata taxawal leen julli bu laajee jàpp ngeen jàpp waaye bi mu yegsee ci jigéen dafa ne demal nga takki acca demal takk maa ngi gis benn docteur wal fajiri mu ngi ciy wax wax bu am solo keroog dama fàtte turam wax na dëgg mu ne ku warta am jabar société bi amut ñépp a war a mën a am jabar ku ne loo am rek ngaa mën a am jabar mais nag góor ñi tamit dañu am sincérité téye jabar yi maa ngi koy seetaan xaw ma ban docteur la maa ngi koy seetaan naa émission bi barki démb rek ku warta am jabar ci société bi amut jabar dafa war a yomb waaye tekkiwul yomb gi mu war a yomb nga war ko fooye ndax loo xam ne boo ko ñàkkee uti ko soo ko amee téye ko wala déet te soo ko ñàkkee la ngay am xamoo nu muy mel mën na yées ki fi jóge ci góor mën na yées ki nga ba ki nga fase ci jigéen mën na yées ci ki nga tàggool kon téyel rek waaw ah, fankixu la yàlla wax nangeen takk al ayaama jéebéer yi mbaa yàlla yi célibataire yu góor yi ak yu jigéen yi bu fekk célibataire ah, yu jigéen yi tey jànq ak célibataire yu góor jigéen yi tey jeeg yàlla ne ku ci mën a takk takk ci mu ne was saalixiina ak ña nga xam ne dañuy yiw tey ay jullit min ibaadikum ca jaam ña ba jaam ji am wa imaikum ba jaam di am de benn tey na leer de gis nga yii ñuy wax amul ci sharia jaam amatut géwél amut ci sharia géer amut ci sharia tëgg amut ci sharia bala mañ yu kenn xamut yooyu yëpp sharia xamu ko xam nga lu sharia xam jullit bu góor ak bu jigéen jeex na lii daal la sharia xam ku la ci neex yàlla ne takkal ah waaw ku la ci neex ngeen juboo demal ñaani ko ñu may la ko man de damaa jaaxle tubaab bu ñëw senegaal di takk kenn du ko laaj tubaabu géwél la wala tubaabu géer la man daal affaire bi jaaxal na ma xanaa tubaab yi amuñu géer ak géwél te bu dee fii nag nga naan nañ lijjanti ba xam ndax euh, kii la géwél la wala géer la wala nangam te bu dee tubaab moom doo lijjanti ndax géer la wala géwél la tuwaab yi amuñu géwél wala amuñ jaam wala amuñ tëgg ba jaam di am léegi jaam amatul léegi tubaab yi amuñ tëgg daal tubaab yi daal amuñ géwél ñun daal kon ñun ñoo yabaate rek di ut ay géwél ak géer ak yu kenn xamul dem leen ngeen takk ci ku leen neex bu leen kenn tardeel fii eh bu dee tukkulóor yi nag ñoom dañ naan ko meccanoo ah waaw mu ngoog waaw ah mu ah. waaw kañ boobu baax na ah wa ima ikum yàlla mën a wax gis nga moo tax takk jabar amul charte looy liggéey amu ci mm-hmm. loo am amu ci yàlla moo mën laaye bii moo ko leeral loo am rek war nga am jabar waaw boo takk bu dee liggéeyee tax ngay takk jabar boo takkee jabar ñu dàqal la suba da ngay fase jabar bu dee alal boo takkee jabar am alal alal ji seey nooy def da ngay fase jabar ji du condition boo waxee naan daf ko war a mën a yor déedéet yow yoroo sa bopp bay mën a yor kenn déedéet sa bopp bay mën a yore kenn du charte yow da nga mën a yor kenn waaw fankixul ayaama minkum wa saalixina min ibadikum wa imaikum xoolal lim ci teg in yakunu fuqara ah waaw xoolal lim ci teg rek in yakunu fuqara fankihul ayaama minkum wasaalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqaraa yugnihim allahu min fadli xoolal lam ci teg moo gën a garaaw wallahu waasiun alim au contraire sax boo mënta am dara demal takki jabar léegi nga am wërsëg bii boobu la yàlla wax moom yàlla nee na boo tëccee tëcc mu të nga fëgg fëgg bunt yëpp tëju mu ne takkil jabar moo ubbi bunt yi waxuma de yàlla wax de est-ce que ñun gëm nañu yàlla wala gëmuñu yàlla foofu la wax bi ne dinaa ci joxe benn exemple tey kuy président de la république du président Macky Sall ñun ñëpp gëm nañ ne mooy président wala déet ku ko fi gëmul taxaw wax ko publiquement ñu yóbbu la ci kaso bi demal ci télé bi nga ne Macky Sall du sama président léegi bu ko neexee yoon woolu la parce que day population bee ko élire donte yow bokkoo ci sax sañoo ko wax du ñun ñëpp nangu nañ te gëm nangu gu ànd ak gëm ne président Macky Sall mooy président de la république dëgg la wala du dëgg waaw kay ñun ñëpp nangu nañ ne président de la république am na ay renseignements généraux du ñun ñëpp nangu nañ ku mu bëgg a xam foo dëkk mën na koo xam ñun ñëpp nangu nañ. waaw tey damay joxe exemple ku fi célibataire waaw ah, kay amal courage yëkkatil bu baax waaw ah, kay ndooy doomu àlli pend ndooy yow sa sikkim bu mag bi yëpp yëpp naka la tur bi wax ah, mataar waaw kañ tey jii mataar xam nga bàyyam siiw na àlli pend ndooy moom ca avant 80 ba léegi ñëpp xam nañ gis nga kon yëkkati na loxoom président xëy xëy rek jox benn motariste lettre ne ko demal kër Ali Penda Ndoye am na doomam bu ñuy wax Maftaan Ndoye nga joxal ma ko lettre bii te nga toog mu liir ko ci sa kanam bu motariste bi ñëwee motaru gendarmerie ñëw gaare bunti kër Ali Penda Ndoye ne fii mooy kër Ali Penda Ndoye ñu ne waa mu ne ana Maftaan mu ne maa ngi mu ne président moo ma yónni ci yow am téel damay jàngale téel doo maxtaar waaye téel rek muy Muhammad léegi nag mu téye mu ne ko noonu na nga jàng ko ci sama kanam nga liir ba pare ne ah yow xam naa balaa ngaa liir moom di nga yaakaar loo def ci diggante bi moom nga xool liir liir liir ne ah président de daf maa woolu nee na tey ci midi naa ko wuyu si xamagoo lum lay doyee de walla xamagoo ko yow de suba teel la ko indi yow moom xam naa ne buy wéy rek nga sangu parce que xam nga ne di nga wuyu président moo la ne kaay wuyu ma nga ñëw mu ne la ah man daal dama yëg ne rek action sociale yaa ngi kiy doxal lu ne dama yëgit ne Sénégal yaa ngi ciy jéem lu ne ma bëggoon la décorer médaille bii maa la ko jox waaye chèque bii nag demal ci ministre des affaire demal ci ministre des finances nga jox ko chèque bi te toog déglu waa di ko gëm wala gëmoo ko boo demee ci ministre des finances mu xool chèque bi ne laa président nee na ñu jox la deux cent millions ah léegi demal trésor mais Maxtaar au la nag au porteur di nga fexe ba chèque bi rëcc wala du rëcc xam nga du rëcc parce que sa tour newu ci léegi au moo ci nekk au mooy ku ko gàddu rek mën naa dem fayi ko ndax turu Maxtaar nekku ci yow yaa wuy ji waaye chèque bi nekkul ci sa tur yàlla noonu la waxee ak ñun ku wóolu rek ku wóolu yàlla ne ku wóolu rek defal ma def man yàlla loolu laa ci jublu motariste bi mooy Jibril président de la république bi mooy rasulullah Jibril moo jëlee lettre bii ñuy wax alquran ca yàlla jaar fa mu war a jaar yépp indi ko ci rasulullah jox ko rasulullah ñëw ci ñun jox ñu ko ñun ñuy gëm ak ñàkk gëm waaw loolu rek laa bëggoon jàngale te bu dee président nga gëm ko bu dee yonent bi nga naan ah yàlla moom xam naa ne daal yàlla baax na waaye dëkk bi daal metti waaw ah, yàlla daal baax na waaye dëkk bi daal moom daal moom gëmoo yàlla daal wax bi mooy gëmoo yàlla waaw boo ko gëmee it wóoluwoo ko yàlla lii la waxeek ñun nag dafa ne boo tëccee tëcc mu nga fëgg fëgg kenn ubbilu la mu ne demal takki jabar yow góor